warahmatullahi rahmatullahi taala barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo ñëwaat di waxtaan ak yéen ci tolluwaayu réew mi Sénégal muy lu ñu te du ñu ñu ci te mu doon li gën ci mi li gën ci kenn li gën ci yépp lu la lu mën nekk la donc sama gars yi ñu ngi leen di bëggee bu wér ah. kontaan ci yéen j'espère bien que ku nekk ci yenn xam ngeen li nekk Sénégal ak li fay la fay dox ak la fa jaarul yoon loolu yëpp nag ñu jóg pour changer ko xeex suñ suñu kéemtalaay kàttan mbir yi jaar yoon mais buñ ko jëriñoowul sax. ñuy jaarale mbir yi yoon jëriñoo ko ndax ñoo ko mérité dañ ne yoon lépp lu fay xéewal ña tegu ci yoon ba ñëw koy jëriñoo waaye yoon it safaan lépp lu fay safaan rek ña tegu ci yoonu safaan ba ñoo koy jëriñoo ku def lu baax rek am lu baax nu ñu góorgóorlu bu baax ñun Sénégal looloo waral xeex bi xeex bi nag ku ci nekk foo ci nekk def ko nu ko mënee def ko rek te yàlla tax xeex bi def ko te yàlla tax mooy li ma yàgg wax chaque jour que Dieu fait doomu aadama ñëw wax ne ma Mollah lan moo tax sa YouTube bi doo ko monétiser nga bàyyi ko nit yi di ko utiliser di ci am ay vues ay vues ay xaalis bu bari et cetera et cetera boo ko defoon nii naa ne xam nga loolu xam nañ ko loolu bu ñu neexoon ñu def ko ca début ba ca l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr ba ba suñu jonn yàlla tey musuñu ubbi loo xam ne dinañ amal dërëm waaye musuñu ñàkk yi de déedéet musuñu ñàkk parce que xam nga lu tax kii fay bu booy def te moom tax doo mus a torox doo mus a ñàkk. donc man sama xeex bii yàlla moo tax ma koy def moom laa ci jiital moom laa ci mujjal mooy ubbi ubbiwaay ba mooy bunt ba mooy fenêtre ba ci sama xeex bi yàlla kese ma gëm ni soxlawuma dërëmu kenn lan na kenn laa soxlawul mission la bu ma suñu borom def ma war ko matal donc soxlawuma ci fukki dërëm ku ci mën a lekk lekkal na res ak jàmm aw ma benn compte boo xam ni mus na maa fukki dërëm dërëm bu gën a ndaw xaw ma sax nuñ koy amee wutuma ko it te lijjantiwuma ko comme nu ma leen koy waxee saa su ne ku ñëw di ma conseil loolu ma ne ko ah <laughs> man de bës bu ma bàyyee def te yàlla tax ba dugg ci wutum xaalis rek yàqu boobu nag la ma yàlla di woon boppam ndax man yàlla dafa ma teral taxawuma ndax xam nga lu tax moom xam na ni man xam naa ni moom xam na ni man lépp lu may def moom rek a tax loolu moo tax du ma mus a seetaan mais bés bu ma wàccee banaan damay wuti dërëm ci sama xeex bii yàlla dina ma def ñukk na yàq bu naqari te man je préfère suñu borom subhanahu wa taala ak alalu doomu aadama yi moom rek a ma ñor moom rek laa bëgg moom rek laa fan moom rek moo fi nekk comme ni naan yaa fi nekk déedéet yàlla rek a fi nekk keneen nekku fi ku fi ñëw dangay dem sa yoon yàlla rek a fi nekk moo tax nangu mu ñu ne yaa fi nekk déedéet nekkuma fi de déedéet ana Cheikh Anta Diop ana Lumumba ana Sankara ana Kenyatta ana Ousmane Sonko hmm? ana Moustapha Lo ana Blondin Diop et cetera et cetera fii yàlla rekk fi nekk moo laa nekku fi kenn nekk fi Macky Sall nekk fi yàlla rekk fi nekk yàlla kese bés boo leen demee ba fi yàlla rek ka fi ne di xam ni fi kenn nekk fi dul suñu borom subhaanahu wa taala man nangu ko mën a yaa fi nekk ku ne ma ne yaa ngi fi di maa ngi fi yaa ngi fi li ma war wàccu la li ma war a def lii nii kenn tegu ma ko papa tegu tegu ma ko doom tegu ko jabar tegu ko tegoo ma ko maa ko tegoo ndax damaa xam ni am naa wareef bu ma war ci man ak sama askan donc li ma war wàccu la kon nan waroo mën a seetaan sax ba ma fi nekk te nekkoo fi danga fi war a nekk ni man ndax li ma war wàccu la wareef bi ma am ba taxawuwu ko ba nga gis ni maa ngi fi noonu nga waree taxawee noonu ba ma gis ni yaa ngi fi parce que li ma war wàccu la kon loolu laa gëm moo tax fii yàlla rekk a fi nekk def te yàlla tax def te bañ ko wax gëm ko nekk ci kon nañ ci nekk ci sama gars yi nañ fi nekk ñun ñëpp nañ fi nekk bu kenn nekk bàyyi kenn ki nañ fi nekk ñun ñëpp te loolu mooy dëgg bu weesoo loolu sama gaa yi dama bëgg ñu gën a farlu ci lu ñu nekk ku ci nekk rek jouer ci sa rôle mu mat sëkk nag bu kenn nangoo doon spectateur ci li fi ne muy injustice bu doy waar bu kenn nangu doon spectateur wala téléspectateur na ñëpp taxaw temm ñu xeex li fi ne ndax li fi comme nu ma koy waxee ñëpp kenn umpale wu ci ni Macky Sall rey na plus de soixante cinq doomu aadama te ñooñu it gënuñu leen ndey gënuñu leen bàyyi ay ban fetal lañ leen tiire ay policiers leen ko tiire ay gendarme leen ko téere ay nervi ñoo leen tiire ñoo leen rey faat seen bakkan ndax quarante mille ndax cinquante mille ndax quatre-vingt mille pour bu dee policier nga wala gendarme wala militaire boo reyee quatre-vingt mille la bu dee ak samba booy nga ñu naan la nervi boo reyee am nga quarante mille ñu rey plus de presque quatre-vingt doomu aadama wëlbatiku naan ay sonko moo leen yónneeg sonko leen yabalak am na ñoo xam ne ñaata ñoo fi dee mosuñu gis sonko ñaata ñoo fi dee mosuñu teg bët sonko ñaata ñoo fi dee ñu sonko mosul gis ñu sonko xamut nan ngay yabalee koo xam ni xamula xamoo ko mosoo ko gis mosu la gis mosu leen tegante loxo askan wu fippu mu yàgg am ci àdduna nga jël loolu bu ko teg ci ndodd benn nit ne kii moo leen yónni mbete peuple buy nalaw mbete peuple buy ignorant ba nga xam ni ñoom si li ñuy dund waa ji leen di yónni gënu leen ko xam ñoom gënuñu kooku gënu leen xam ñoom li ñuy dund peuple bu jóg waa léegi peuple bi nga xam ne moom moo jóg du dugg ci gaal yi gaal yi di këpp ñuy dee booy di ñëw delluwaat delluwaat waa ñooñu ku leen yabal ku leen yónni ñu dégg ab sëriñ génn fii ne ku dee da nga na ko on s'en fout di ko ci teg tambour battant di topp du dugg ci gaal yi waa léegi ñooñu ku leen yónni ñaata doomu aadama ñaata sénégalais ñoo dee ci océan bi des des milliers c'est des milliers vous leen yónni ku ce que ku leen yebal parce que la gouvernance bu bonne, mal gouvernance détournement de deniers publics njaayum dolé. Et pourtant nous, <laughs> le gouvernement est là. parce que nous avons teg lu wara là. Nous ñun ñëpp bëgg a daw ñun ñëpp daw jeunes yi ñaata la ci géej gi ravage ba léegi boo yaa ngi ko ciy teg ba léegi boo yaa ngi dee mais yaa ngi dem c'est parce que gisuñu fi dara gisuñu fi dara maintenant comme nuñ koy waxee gis nga doomu aadama boo nekk ci mbir danga koy gëm danga koy gëm am na benn débat bu ñu leen di jéem a instaurer lank leen bañ leen bañ leen débat boobu noonu mooy débat bu ñu leen di jéem a gëmloo Pastef plan B <laughs> kooku saaga la loolu mooy ñun ñëpp suñu xeex amul benn njëriñ xeex buñ fi xeex ñi fi dee ñi fi yëpp pour kan la pour Sonko la woon pour Sonko falu parce que Sonko ak projet ak ni ñu ñëw ba à la dernière ñu ñu bugg a gëmloo di ñu forcer nañ fi teg benn débat buy plan B <laughs> wax jooju bu fi tegoo ñëpp woon ginnaaw man de ginnaaw laa leen woon awma lu ma ci rus parce que man xeexuma pour ay plan B man kan moo ma gën fii ci ñooñu kan moo ma ëpp xam-xam ci ñooñu man plan B kon man loo fi doon def sama xeex bi ma xeex nit yi dee fii nit yi ñu sànq nit yi ñu tiir ay bal yooyu yëpp ñun dañoo xeex pour ay plan B quoi <laughs> kon ñun suñu xeex bi plan B la woon quoi kon Macky Sall moo ñu mën kon Macky Sall mooy suñu baay ñun ñu jëpp jóg na ñun Sonko allah kulli àll bu élec Sonko bu fi amul élection du fi am jàmm du fi am jàmm du fi am guerre sax mën na fi am ñu toog ba dernier minute ñu wax naan non xool nañ xool plan B sa fuuda kii xanaa ñi dee dañ leen dem suuli suuli la ne leen yéen waru leen dee kaay leen dundaat kon affaire bi nekkate plan B la loolu waxi dof la bu leen nangu débat boobu bu leen ko fekkee bu leen ko déglu bu leen ko seetaan ko leen fekk muy wax sappe leen seen télé ndax yow say frère ñu doon ay martyr ndax plan B ndax ñu nekkuñu fi di xeex boobu ba léegi ndax plan B ndax yéen nekku leen fi woon ndax plan B ndax xare bi ñu xare ba yegg si fii depuis deux mille vingt et ak lu ñu dajal Adji Sarr ak ay mbokkam xam nga ni du ay waxu plan B xanaa bu dee plan B kon man ma ñëw ngeen jël ma man ñii dañ maa ëpp xam-xam yéen man ñii bu ñii bu may ñu fa nekk ñëpp maa leen gën a voyagé maa leen ëpp expérience mondiale ñi fa nekk ñëpp laa la wax maa leen ëpp expérience mondiale maa leen gën a dox maa leen gën a voyage maa leen gën a xam àdduna nu muy doxee wax dund naa ko mun loolu bu naree am kay <laughs> jël leen ma ñeewu ma keneen foofu ñeewu ma fa keneen affaire bi Sonko point focus ngeen waxoon 2024 Sonko point amul plan A plan B plan C plan D Sonko point point Macky Sall ne Sonko du dem ñu ne Sonko de dem ñu dem ba toog Macky Sall bëgg a réussir affaire bi ne ko Sonko du dem ñu ne kon nañ xooli plan B loolu perte temps la bu leen ko nangu bu leen nangu loolu lànk leen ku leen ko gëmloo ne kon waxi naxa sa xandang la Sonko ou la mort Sonko walla Sénégal jeex Sonko wala Sénégal ñu ñu ñu yàq lépp yem ci affaire bi loolu la sa waay Sonko la wala Sénégal yàqu mu jeex amul amul ku fi dirigé kan lañ fi bàyyi muy dirigé wala ay waxu plan ak ki plan B ki kooku est que respect la mais yow am na yoo xam ne yëfu dëmm la sax. Sonko nekk ci digg lalu hôpital entre la vie et la mort ñu ko fay garder prison hôpital ñu def ko prison entre la vie et la mort mais nit yi amuñu leen lu ñuy wax toog ci télé yi naan ay plan A ku deewagul sax ngeen bugg ko ngeen bugg koo suul bugg koo saraxe loolu du yëfu dëmm la loolu du yëfu nit waa ñi deewagul mi ngi ci lalu hôpital di xare pour yow yow nga commencé koo suul te deewagul di wax waxu plan A wax plan B ki plan C mais yow du dëmm nga yow dëmm nga. mi ngi mel ni waa ji deewagul tëdd ci lalu hôpital borom kër gi yéen ngeen di wax ne ngeen miraas bu ñu ko miraasee <laughs> mais sa waay man de ma tëddoon ci lalu hôpital samay doon toog fee naan nañ ko miraas jaral na ma ma jóg ak samay perfusion ñëw fekk leen foofu jël kayit ba saraxe ko ne kii bu ci kenn lekk am joxal ma ko taalibe ba la nekk ci mbedd bi jëlal lépp parce que ñii ay dëmm lañ ñii kon sama dee lañ doon xaar tëdd ci lalu hôpital rek ñu commencé bugg maa miraas ñii ay est du ñuy dëmm di commencé waxtaan bu dee bu dee bu dee nan lañu wara def kan mo wara jël lal bi kan mo wara jël li kan mo wara jël nangam ñoo du ñu nit ay dëmb lañ ma juróon doom buy def loolu ma jóg ci loolu hôpital bi ne leen jàppale leen ma ñu jàppale ma ba ma ma jël sama alal saraxa ko ay ay pépinière sax ay ay liir parce que may xam ne ñii ay dëmb ay dëmb laa jur du yëfu nit toog ba jamono ji Sonko toll entre la vie et la mort ni di war a xare rayante gi libéré ko ay nit taxaw ci télé yi partout journée boo ubbi plan A plan B télé plan A plan mais mais mais yi bu leen nangu détournement boobu noonu bu leen nangu gars yi wëlbati seen xel yi lank leen ñun gënuñu leen nday man nga Sénégal saa yu ma xalaatee ni midi bu jotee ku nekk benn bool la ñuy teg ñi yor kudd ñi di dànk ceeb la ceeb ne nii nii nii di dugal man dama naan kenn du dugal ceeb ci gémmiñ gi ma dugal ceeb sama gémmiñ gi nga gën ma ba wun maa détourné man loolu dama ko musa lànk parce que saa ma ni midi yow su bol ngay tok dank ci wutax warax ma dank ci wutax warax nga nan ndox mu jall ma nan ndox mu jall nga gën ma nday gën ma ba yow yow est ce que wër nga yow fo jaar xana midi do dank ci wutax may dank ci di wutax nga gën ma nday wala gën ma bay ba war ma mëna détourner wala mëna détourner sama conscience <laughs> c'est parce que man kon sama limay dank diko duggal baxut dugal man nanguma kenn kuy yeewoo Sénégal di dank kecap gën ma wala mun war mun ma fooye wala di ma détourner wala di ma orienté ci ni mu bëggee ma xalaatee ko duma ko nangu lank laa def bu tëdd ci suuf si boobaa sama ceebu baay day neen du niin day neen dafa am ñu seen ceebu baay niin ak ñu seen ceebu baay neen ñoo xam seen baay jox lañuy lekk ba suur sonn lu nekk mu daj ko pour jox ko nga lekk beneen keneen ku ceebu baayam niin nax la yow kon yow sa ceebu baay daa neen la nga lekk amul njëriñ kenen ki moom moo lek ñew di la di ak ak bu nin bi di la foo eh yow kon yow sa ceebu bàyyi niinul daa neen amul njëriñ lam la jox lu la njëriñ kon lool nañ ko lank plan B amu fi plan B amu fi ben option mo fi am Ousmane Sonko point bu len kenn lo bu boba buñ demee ba ki nangam nangam lool Macky Sall day gagné parce que Macky Sall mom limu mu <laughs> xana ñu duñ dem ba ben ben moment nanguko Macky sàll loolu la waxoon naa leen ko fi ma leen même Macky sàll loolu laa mus a wax te musuma ko wàcc mooy Macky Sall nee na Ousmane Sonko du dem ci élection yi <laughs> loolu la mus a jàpp waaye man may laaj ba xam Macky Sall moom ndeyam fi jur lu kenn amul wala hmm? moom moo fi jur koo xam ne moom day toog ne moom lii la lii la saa yu waxee dara un 17 millions wala 18 millions de Sénégalais ñu ko dindi. <laughs> kooku nag bu boobaa nag ñu xam ba xam ñu yokk progéniture Macky Sall bi sa famille ñu am ay doom partout parce que ñoom dañuy jur ñoo xam ne ñoom ñoo mun 17 millions de sénégalais ñoom dañuy taxaw di imposer nit yi lu ñu bëgg Sonko du bokk bu ñu toogee ba Sonko bokkul kay bu boobaa ñu xam ne Macky Sall ndayam jur ku baax moom moo fi wax loo xam ne depuis 2021 ba mu ko waxee ba ñu découvrir ko ne loolu la wax ba léegi dara dindeeku ci donc nañu maintain stay real never change lu ñu gëmoon démb nañ ko gëm ba tey bu ñu mus a wane benn sentiment d'impuissance wala sentiment de euh, euh, de victimisation nañu taxaw jëmmal suñu bopp dëggal suñu bopp fii benn option la am moo taxaw nit yi di rayante moo tax nit yi dee mooy Sonko moo ñu ñëw présenter benn projet ñu gëm ko ay projet bobu dañ koy génne jógal ko dugal ko ci loxo wala loxo ñun gën wala gën ñun soutenir hein Sonko soutenir ay sonkiste lañ duñ ay pastéfien ay sonkiste lañ l'idéologie sonkiste ñu wuñ pastéfien dé le sonkisme dañ fi ñukk le pastéfien le pastéfisme ko le sonkisme c'est une idéologie un courant de pensée idéologique le sonkisme et on y croit loolu lañ gëm lolou mo waral tay nit ni ni ñi leen di ray ñi ñi leen di tej donc ñun nekkuñu ci taxawuñ sentiment de faiblesse on résiste Sonko doit être libre c'est ça le plan B c'est Sonko libre Sonko dafa être libre c'est le plan A et le plan B amul lenen maintenant comme nous ñu dit, Euh, Macky Sall saa yu tegee paa ci Sonko mu ngi jéem a tegaat beneen paa dinaa leen wax nag paa bi mu jógte jamono jii lu nekk rek Macky Sall day def annonce te lu muy def nag di ko waajal ñu dañuy ñëw wax leen tey ki nga xam ne mooy Cheikh Bara Ndiaye arrêté woon na grève de la faim bi bu leen fàtte nag sëriñam bokk ci njabootu Serigne bara Mbàkke di xalif généralu famille Serigne bara Mbàkke moy sëriñam mu jokk ci mom serigne bobu mom mo yonne pour Cheikh bara arrêter grève de la faim bi en attendant mom mu dox ci ay tank jam Cheikh bara nak def na liko ko sëriñam sant gis nga affaire bi ñaar la gorté wax ja lepp looy dugg na nek ful la Cheikh Baara nangu na li ko sëriñam wax def na ko arrêtel grève de la fin bi ma jóg dox ci ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër ndax defoo yëgoo tino di xamal ni xalif général bi bu sëriñ Baara Mbàkke di xamal xalif général des Mourides que Cheikh Baara Ndiaye def na li ngeen ko sant arrêté na grève de la fin bi ni ngeen ko ko santee la ko defee ndigal jëfe jëfe na ko ñuy wax nag fu mu nekk nii la balle est dans votre camp seen taalibe bi gëm leen fonk leen respecté leen jox leen cër nawloo woo leen def na li ngeen ko sant ñu ngi toog nag di déglu yéen it li ngeen nga digeeg moom fu nekk nii nag Cheikh Bara jële nañ ko réanimation parce que arrêté na grève de la faim bi mu ngi lekk mi ngi naan dellu na ca mi ngi mingi revenir ndànk-ndànk donc yóbbu nañ ko pavillon spécial jëlee nañ ko principal yóbbu nañ ko le Dantec pour pour l'instant parce que arrêté na grève de la faim bi def na donc liko ko war macha allah donc mu dess ci hôpital de réanimation ba Ousmane Sonko ak ki nga xamni moy mooy Djim ñaar ñooñu nag arrêté wuñ seen grève de la faim ñi ngi maintain ñi ngi bañ ba léegi fa ñu ne woon ñanga fa nee nañ am mbaa ñàkk dund mbaa dee Macky Sall du ku ñuy négocier Macky Sall du ku ñuy waxtaanal Macky sàll du nit bu baax ma nga noonu trois heures du matin nga xam ni doomu aadama yëpp a ngi nelaw mu daw dem gisi ji sëñ bi loolu moom yomb na ñëw toog taxaw nuyoo dem sa yoon ne veut pas dire que <laughs> gëm nga walla walla fonk nga <laughs> ndax ndax tey euh, yomal xiyaam sax safara bari na fa ñu doon julli dañ yàlla nee na am na xaaj bu bëree bëri bëri dañ doon julli safara lañ jëm <laughs> donc moom ñëw nuyu xalif bi sujjóot wala sukk am ñu ñu koy bëgg a woon ne nangam ab taalibe la ak yooyu yooyu moom <laughs> naxa la rek <laughs> yàlla moo ne am na ñuy julli ci sama jaam yi safara lañ jëm jaxanama jaxanama la leen wax jaxanama te dañuy julli <laughs> donc ku ñëw sujjóot ak sëgg ak siggi ñun jaaxaluñu donc comme bañ sonkorisation bi guddi guddi x la daw dem fa daw génnaat tuuti capp waaye ñu ngi déglu suñu kilifa yi yaakaar naa ne wax nañ ko mu libéré Ousmane Sonko moom mi ngi continuer grève de la fin moo ki nga xam ne mooy Hannibal Djim ndax dañ kaa tooñ tooññarti ko ba pare nag Macky Sall yamu ca gis ngeen avocat yi ngeen gis bii passé ñu génn avocat état bi ñoom El Hadj ak mbalit moomu noonu ak caga ji génn état bi ñu ne ñooñu dañuy constituer parti civile quoi ndax yàqu-yàqu yi léegi nag loolu dafa am lan la leen di expliquer tey lan la ci Macky Sall jublu Macky Sall dafa jublu ci ne day toroxal Ousmane Sonko ba mu torox tot comme nu mu defoon Abdoulaye Wade la la bëgg a def Ousmane Sonko. dafa jóg ci ne gars yi nañu estimer yàqu-yàqu yi mu teg ko ci ndodd Ousmane Sonko ne da topp pour nangu këram googu mu yor kër gu ndaw benn kër googu Ousmane Sonko yor Macky Sall dafa jóg te pour nangu kër gi tëj compte banque yi wër ay compte banque am comme nu mu defoon xalifa sàll ak baay euh, kii nu mu defoon euh, ki nga xam ne mooy Karim Wade ak baayam topp boobu mu leen toppoon ba nangu seen kër point E topp leen bët bloqué compte yeeg yooyu loolu la jógte léegi daf na état bi def leen avocat état bi ak ak gars yi nañ def maanaam nañ xool yàqu-yàqu yi bu ñu paree mu jëm ko teg ci ndodd Ousmane Sonko ne ko comme benn trente milliards la wala quarante cinq milliards la ne day teg loxoom ci këru Ousmane Sonko loolu mu la jóg te jamono jii il veut saisir la maison de Ousmane Sonko bii ay jabaram nekk ak ay doomam moo nekk plan bii di ñëw plan bii di ñëw di ngeen ko gis parce que nee na dafa dissoudre Pastef dem na day récupérer xaalis fekk ko fa dara Pastef amuñu benn siège buñ moomal seen bopp bu seen këy seen tur nekk dañoo luye woon mu ñëw jël siège ya jël baaful ya jël la fa nekk noonu yóbbu tëj mais li mu doon wut amu ko muy wër compte bancaire yi gisul benn compte bancaire au nom de Pastef mu récupérer ñi nga xam ni mooy état bi wutal leen ay avocat ñu ne léegi constitué wu leen parti civile léegi ñu xool dommage et intérêt yàqu-yàqu yépp buñ ko calculer ñaata milliards la ñu dem toppi Ousmane Sonko nangu ay këram nangu ay compte bancaire am tëj ko maanaam toroxal ko comme ba mu ne tot comme nu ñu defoon Ablaye Wade nga xam dañoo nangu këram Ablaye Wade di wër di wër di taxawaalu yéen a ngi fàttaliku Ablaye Wade bu muy wër di taxawaalu hmm? di cuuj fii cuuj fee nekk SDF un ancien président de la république Macky Sall def ko SDF muy wër ay këru jàmbur bu fanaanee fii tey fanaan fee suba doon SDF donc Macky Sall loolu la bëgg a def Ousmane Sonko daf ko nee da ko soppi SDF nee na dafay bu état bi pare jamono ji ñi ngi wax nee nañ BRT bi rek 5 milliards lañ ca yàq <laughs> nee na BRT bi kese ci ci kii ba mentionné nañ BRT bi rek cinq milliards et quelque lañ ci yàq nee nañ léegi nag leena après loolu da ciy jéem a topp Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar ngeen waajal ko it Macky la ngi ñëw yemul foofu nee na day topp Ousmane Sonko ci yàqu-yàqu yi fi am ci dëkk bi bu ñu génnee nee na ñoom état bi dañuy taxawee taxawaayu partie civile dëmm bi pareegul Macky Sall nooxóor bi pareegul infiro laqat jaaxum bi pareegul lekkkatu nit bi pareegul rancunier bi pareegul ma ngay ñëwaat chercher le naturel il revient au galop dëmm baa ngi ñëwaat nooxóor baa ngi waajalaat songaat Ousmane Sonko ci lalu hôpitalam ma ngay ñëwaat fas yéene songaat Ousmane Sonko ci lalu hôpital ba nee na du ko bàyyi mooy wax jooju waxoon naa leen ko fi ba gars yi doon wax naan Barthélemy Diaz bi gis naa sax ñu dagg benn parti ci eh, kii bi di ko teg mais Barthélemy Diaz expliqué woon naa leen ko problème mu Barthélemy Diaz ak Ousmane ko lii kese la Barthélemy Diaz ba mu gisee woon Macky Sall daf ne ko dem leen ngeen créer seen yëfu bopp. Barthélemy ne ko ah mu ne ko waaw waxtaan boobu noonu waxoon naa leen ko fi mu leen ko dem leen ngeen créer seen yeufu bop te ngeen bàyyi Ousmane Sonko Barthélemy ne ko lutax mu ne ko du dem du dem ci élection yi du voter du dem dem leen nga wax ak khalifa ngeen fexé ñu ñu waxtaanee ma bàyyi leen ngeen dem te ngeen bàyyi fi ñuk Ousmane Sonko ne yàq bu nakari te man Macky Sall ma la wax yow Barthélemy Ousmane Sonko du dem lolu motax ba Ousmane Sonko Barthélemy trahir ko parce que Macky Sall da ko watal wacc ne ko sa waji du dem Boko topé dalay tardel ndax du dem duma nangumu mu dem duma nangu mu voté loolu moo tax loolu kese le problème Barthélemy Diaz Ousmane Sonko foofu nag la Barthélemy Diaz don wax Ousmane Sonko tey nga bàyyi bi mu jall benen bi parce que tout simplement Macky Sall xam lo nako nako ne ko waaju du dem kon bo ci topé da ngay tardé demal ñu xol lu ñu waxtané ñu ñu ma jema nangul khalifa mu ñew bokku yow nga dem and ak khalifa nga bàyyi fi waji ndax waji du du dem nak waxoon naa leen ko fi mais ñun loolu moo waral seen jeu yi ñu def yëpp seen jeu yi ñu def yëpp xalifa jeu yi muy def ak Barthélemy parce que ñoom dañoo gëm waxu Macky sàll mais gëmuñu waxu peuple bi te peuple dañ ne Ousmane day dem ñaari wax fi am Macky moo ne leen bu leen bu ko topp duñ dem peuple ne Macky sàll yow ak sa baay ak sa yaay ak sa maam ak sa nguur mënuñu fexe ba Ousmane Sonko du dem ci élection yi donc le peuple est là Macky Sall mi ngi nii ku ànd ak Macky Sall ma nga la wax loolu ultime phase last line of defense dernière ligne de défense bi bu boobaa yàlla day mbay ndam peuple bi loolu moo waral ñu créer seen dialogue parce que ki nga xam ni moom mooy Barthélemy Juda Diaz dafa accepter loolu nga xam ni moom la ko Macky Sall wax voilà ba mu ko ko waxee sax Barthélemy don na jema a Macky Sall xamal ko ne man ben kàddu la xamewuma ñaar ak ñet mu mu ré ne ko waawaaw président wax nga deug de loolu moom deug la donc loolu motax mu trahir ko Barthélemy Juda Dia trahir Sonko mais nak Macky Sall mën na bayyi lu muy bàyyi nak Macky Sall ay négociation du ko bàyyiloo ay négociation non du ko bàyyiloo